الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد مبكو جلتي لور بيب جام بيب جلت بغم يالله موي مغور غور لو تي تخيم في تي أدناك الآخرة أك يوانوك بكنام تي باخلكو أك دفركو تي غور غور تي خم خم بو خم ني خم خم بو سل لا خم خم بو أم جرين لا أك جف يو خم جف يو باخ لا نيار يوي تي لي غور غور لو تاغت يرامم tàggat ci bakkanam ba bakkan bi nekk loo xam ne lu set la te ci loolu rek lay mën a amee ak texe fii ci àdduna wala ci alaxira comme na ko suñu borom subhanahu wa taala waxee woon ci ne nit ki nga xam ne moo tàggat bakkanam fexe ba laabal bakkan boobu sellal bakkan boobu kooku mooy ki texe te loolu mi ngi nekk ci góorgóorlu ci yar ko ci xam-xam bu baax waaye tamit ak jëf yoo xam ne jëf yu sell la moo tax suñu borom subhanahu wa taala waxoon ne képp koo xam gëm na ne dina daje ak boromam ëllëg na góorgóorlu ci jëf lan la wax fal amalan salihan jëf yoo xam ne jëf yu sell la jëf yoo xam ne jëf yu baax la te moytandiku lépp loo xam ne dafay yàq jëf yooyu mooy lim ko tere bi mu ko digalee jëf daf ko tere li yàq jëf yi te mooy bokkaale ndax su fekkee bokkaale na rek ay jëfam dafay neen comme na ko suñu borom subhanahu wa taala waxee woon yonent yi ne laqad uxiya ilayk wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk yonent yépp yàlla waxoon na leen ne bu ñu defee bokkaale seeni jëf dafay yàqu kon foofu ci aaya boobu mu digal kii gëm ne dina dajeeg yàlla ëllëg dajeeg boromam mu fay ko mu gorgorlu ci jëf yu baax te tondiku lu yàq jëf yooyu loolu moo tax kon lépp lu nit ki gorgorlu ci ay jëf yu baax di ko def di ko jaamoo yàlla subhanahu wa taala jëf yooyu du ko amal njariñ bu fekkee góorgóorluwul ci sàmm jëf yooyu ba jëf yi bañ a yàqu ci lépp loo xam ne daf koy yàq ndax nit ki mën nay gorgorlu di def ay jëf yu baax bay taxaw guddi di def ay naafila di woor ay bëccëg waaye fekk ne protégé wul ay jëfam ci moom ay doxalinam amna ci lu muy def loo xam ne ci wàll ga ma ngay yàq jëf yooyu nga xamante ne ma ngi koy góorgóorlu di ci sonn loolu jaaruwul ndax suñu borom subhanahu wa taala bi mu ñu digalee ne nañ ko topp topp yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu ay jëf yu baax la daf nañu waaye nag bu leen di sànk bu leen di nenal seen jëf daf nañu yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla toppub yonentam te bañ ay sànk bañ a neenal seen i jëf mooy kon dee leen def lu baax di jaamu yàlla mooy topp yàlla gi ak topp yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye tamit ci beneen wàll ba mooy tundiku leen bépp comportement bépp attitude boo xam ne dafay waral seen jëf yooyu ngeen di sonn te yàlla santoon leen ko du ngeen ko jariñoo mu bokk ne dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoo gën a màgg ci yoo xam ne mën naa yàqal nit ki jëfam ba du ko jariñoo benn cër boo xamante ne mi ngi ci doomu aadama bi cër boo xamante ni ci cëram yi ko yàlla subhanahu wa taala jox la bokk te loolu moom mooy làmmiñam làmmiñ bi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala jox na ko cër la boo xamante cër bu doy waar la cër bu dangereux la te li mu am ci ay yàqute ak ay loraange yu mu mën a jural borom bari na lool bu fekkente ni borom làmmiñ ba nga xam ne yàlla moo ko jox muy ab cër ci moom sàmmantewu la ak moom bàyyi xel la nga xam ne ma ko cay wax du ko xëccal du ko jural lu dul ak pertange goo xamante ne bu bér la yonente bi alayhi salatu wasallam doon wax ne ab jaam dina wax benn kàddu kàddu googu waral ci moom mu tàbbe ci biir safara nër meelu ci safara tàbbi fa tàbbi goo xamante ni dina xóot xóotaay bu mel ne ni nga xamanteni non la penku bi ak sowu bi sorente nee sori way bu mel non distance bu mel non dina ko nërmeelu ci bir safara ci ben kàddu la yatakallamu bil kalima namu ci genn kàddu ne ben bat la waye kàddu gi moy wax jo xamni wax ju bari wul la ndax kalima bu ko waxe lim ci nam moy taqlil taqlil lañ ci nam mais namu ci ne ben bat la ben bat mais genn kàddu la moy wax jo xamni wax ju bari wul la wax jo xamni nit ki da koy xeeb wax jo xamni reuyul ci mom wax joo xam ne jafewul ci moom mu wax ko loolu moo tax mu jëfandikoo baatu kalima waaye loolu muy oyof ci làmmiñam yépp ak loolu muy nekk lu tuuti loolu ci nit ki li mu njort noonu la timit bare ay loraange yoo xamante ne jural na ko ko ndax waral na ci moom mu tàbbe ci safara yamu ca waaye xóotaay ba nga xamante ne bi tamit tàbbi na ko fa yonente bi alayhi salatu daf koo wax loolu moo tax kon kenn ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi xel li nga xamante ni mooy làmmiñam lim ciy wax ndax bu ko defulé bu amul maîtrise ci lamiñam moy maîtriser wul dinem ak lu nit ki gor góorgóorlu ci lu bax li fek amul maîtrise ci lamiñam moy na xamné kon maîtriser wul dinem lu baxam lolu muy gor góorgóorlu ci di ci sonu amul ben garantie ci ne ëllëg dina ko jariño ndax day sonu di kër kër yi bu jógee wax ci lamiñam lo xamné ne yàq na jëf jojo yépp motax kon lamiñ nek lu doy war Muaz ibn Jabal ben bis yonente bi alayhi salatu wasallam daf ko don jàngal Muaz diko laaj jaamu yàlla yi jëf yi lu ci gën a baax mu naan ko seede bi lay dugal ci lislaam mooy lépp mbir mi waaye liy taawu lislaam ba du daanu ci jullit bi mooy julli nangam lu baax la nangam lu baax la lu ne mu koy wax jëf yi ba ci mujjantal ga mu ne ko ndax du ma la wax loo xam ne nag moom moo lay téyel loolu yépp ba nga mën koo jariñoo ala adulluka ala milaki dalika kullihi ndax du ma la tegtal loo xam ne boo ko maîtriser jëf ju baax jooju yépp di nga ko jariñoo maîtriser nga ko mi ngi ci sa loxo mi ngi mel ne def nga ko sa poche garantil na ne di nga ci jariñu kon boo ko maîtriser wul mooy jëf jooju li muy màgg-màgg yépp du la jariñ Muaz na ko ahañ kay yonente bi alayhi salaam génne làmmiñam ba Muaz di ko gis mu jàpp ci ne ko téyel lii téyel lii kuffa alayka haada téyel sa làmmiñ bu fekkee bëgg ngaa jariñu ci mbaax gi ma la wax téyel sa làmmiñ Muaz ne ko ah mooy yonente bi alayhi salaatu salaam ndax ñun dañ ñuy jàppee li ñuy wax mu ne ko Muaz sa ndey jooy na la toskare ñeel na la Muaz ndax am na leneen lu gën a mën a jël nit ñi tàbbal leen ci biir safara nërmel leen ci biir safara làmmiñ mooy ndax ni ko làmmiñ di defee am na leneen lu koy defee noonu loolu la ko wax kon loolu li muy tekki mooy làmmiñ bokk na ci liy gën a dugal doomu aadama yi safara làmmiñ moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam wax ko foofu wax joo xam ni wax ju tiitlu la wax ju raglu la ndax làmmiñ lu bari su ci doomu adama yi duñu bàyyi xel ci danger bi mu am ndax wax dafa yomb wax dafa gaaw wax dafa oyof jëf sax dina laaj yow coono tuuti mais wax fi nga toog ngay toog xëy suba ba ngoon di wax te doo yëg benn coono bu nit ki sensibleul bàyyi xel ci limi wax rek di wax wax yoo xamante ni li koy yàqal ci dinam kenn du xam nu mu toll moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam wax Muaz wax jooju mu nekk wax joo xam ne wax ju tiit la tiitlu la alxaafis ibnu rajab ne xadis boobu li ñu ciy déggee mooy ndakate maîtriser sa làmmiñ mooy cosaanu bépp yiw mooy li lay garantiral nga jëriñoo ci bépp yiw mu ne koo xamante ni bii maîtriser na làmmiñam am contrôle ci làmmiñam mu ne kooku kon dina mën a am contrôle ci diineem dina mën a jëriñoo ci diine ji nga xamante ni mi ngi koy def ci jaamu yàlla yi nga xamante ni mi ngi koy def waaye bu fekkente ni perte na contrôle boobu limi tekki moy kon li nga xamne mi ngi koy def di ci kër kër yi di ci sonu ci ay jaamu yàlla worul na dina ko jariño bu fekkante ni setu nañ mbiru làmmiñ ak nim doye war ak niko ko bi alayhi salatu don moy tondi ko lo sahaba yi yaron na len ci lolu yar len ci ba ñom ñu ragal ko lol al imam malik dafa solo ben athar bo xamanteni xew-xew lay netali bu dox digante omar ibn al khattab ak abou bakar as siddiq radiyallahu anhuma omar dafa mës a dikkal abou bakar di ko seet si ñëw fekk ko mu jàpp ci làmmiñ bi di ko xëcc xëcc bu metti omar ibn alxataab ne ko bàyyi li ngay def lan moo tax ngay xëcc sa làmmiñ bi nii mu ne ko hada alladi awradani almawaarid mu ne ko lépp fépp lu ma dugg lépp loo xamante ni jànkonte naak moom ci ay jafe-jafe lu may indil ay tolof-tolof ci sama diine ak sama àdduna sama làmmiñ bi moo ma ko jural moo tax ma koy xëcc xëcc boo xam ni c'est juste pour moom mu sensibiliser boppam ci danger yi nga xamante ne bi làmmiñam boobu am na ko loolu kon nekk taxawaay boo xam ni dalay woon saxaaba yi yar bi leen yonente bi alayhi salatu salaam yaroon bu ñu leen di tudd di wax seen baax nañu bàyyi xel ci yooyu ndax dañuy wax chaque fois di wax ne suñu diine ñi ngi koy jëlee ci alxuraan ak sunna ak doxalinu ñooñee yonente bi yaroon waaye nañuy bàyyi xel yar boobu leen yonente bi alayhi salatu salaam yaroon léeg-léeg ñi gën a mën a coow ci ñun di wax loolu ñoo gën a ñàkk bàyyi xel yar boobu nga xam ne yonente bi alayhi salaam yaroon na leen ko te ñu ñoom nekkoon ci ñoom nga xamante ni li ñu nekkoon loolu moo leen ko def nekkul rek coow luñ daan coow ak wax juñ daan wax waaye ñàkk sàmm suñu làmmiñ munta ànd mukk ak ne nit ki dafa bëgg a baax yëwanal diine munta ànd abdullah ibni masud daf doon wàcc yàlla ne amul ci àdduna lu gën a yey ci ñu jël ko tëj ko tëj bu yàgg yàgg yàgg ba du génn lu mel ne làmmiñ nee lamiñ amul lu gëna a yey ci ñu tëj ko bañ ko tijji lu lu lamiñ làmmiñ al hafid mi rajab di wax ne hadith Muaz boobu bu dee seetlu nga ko ci ne yonante bi alayhi salatu wasallam waxee ak Muaz nee da ngay gis ne li ëpp ci li dugal nit ñi safara nee lamiñ làmmiñ bokk na ci ndax yonante bi alayhi salatu wasallam dafa xone ñaari mbir ci nit mooy yëpp ci li dugal nit safara nee na mooy làmmiñam ak pëyam nasalullah salaamata al nga gis ne mu ne li nga xamante ne bi mooy mooy yàlla ci làmmiñ bokk na ci bokkaale li nit kiy wax ci li ko mën a jural pertaange ci làmmiñam bokk na ci baati bokkaale yi nit ñi wax di ko génne ci seen làmmiñ dégg nit muy wax di jëmale ci yàlla loo xam ni di wax di jëmale ci mbindeef loo xam ni bokkaale bu rëy rëy la loola mën a yàq diineem yàq diiney doomu aadama yu bari mu ne bokk na ci kon bokkaale boobu noonu ci gëna reuy ci yo xamne nit ki daf koy jaarale ci lamiñam mu ne bokku na ci timit wax ci yàlla lu nit ki xamul lu nit ki tegul ci xam-xam bépp wax bo xam nit ki da koy wax diko jëmele ci yàlla ci jëmmam ji wala mu koy jëmele ci dina yàlla ji te teguwul ci ay firnde yu leer yu sukkandiko ci alquraanu yàlla ji ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalam wax ci yàlla wax ju tegewul ci xam-xam la te loolu bokk na ci bokka bakkar yi gëna mag yenn ci borom xam dañuy wax ne mook bokkaale ñoo tolloo alxaafid ibnu alqayim rahimahullah da fay wax ne sax mom ni mu jàngatee aay bi nek ci suratul maida mu ne bàkkaar boobu moo gën a màgg ndax dega yi nga xamantene am nako ndax dara yàqul diine ludul wax ci yàlla lo xamne nit ki koy wax tegu ko ci xam-xam daanaka loolu dong mo yàq diine mu daldi di wax tamit ne bokkaat na ci yoyu ba legi di sédé lo xamantene nit ki da koy sédé te tegu ko ci xam-xam du sédé deug sédé bo xam da cey nénalé ay àq wala di ci joxe ay àq te la seede xam na ne lii du dëgg loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg yoo xam ne doomu aadama daf koy def mu ne loolu yëpp ci làmmiñ la ko nit ki di defee mu ne dina ci bokk tamit njabar gi nit kiy wax ci làmmiñam ndax ñiy def njabar la ñuy def di def ay invocation ci seen làmmiñ lañ koy defee nee na ak tamit di tuumaal nit di tuumaal koo xamante ni bii ab jàmbur la boo xam ne la ko nit kiy tuumaal amu ci benn firnde nee na loolu tamit bokk na ci bàkkaar yooyu mu ne ak yeneeni i xeeti bàkkaar yu mag ak bakar yoo xam ne yu ndaw la yu nit ki mën a fàggu di ko def ci làmmiñam mu ne bokk na ci lim lim ciy joxewaat comme exemple wax lu dul dëgg te loolu bokk na ci yàqute yi gën a yi nga xam ne mooy yàquteeg làmmiñ mooy wax lu dul dëgg génne wax joo xamante ni teguwul ci dëgg loola muy kadib li ñu tuddee al kadib jikko la boo xam ne dëppoowul ak ngëm yàlla yonente bi alayhi salaam dafa wax ne loolu du dikko julit bu gëm yàlla jullit bu gëm yàlla façon doy di gu mën na ne ci moom bam mu des wax lu dul dëgg ndax ngëm gim gëm yàlla dafa war a def ci moom genn xeetu dëgg boo xam ne du génn ci làmmiñam loo xam ne lii du dëgg innama yaftari al alkadiba alladina la yuminun ku gëmul yàlla mooy wax lu dul dëgg ku gëm yàlla moo tax yonente bi alayhi salaam aisha radiallahu anha nee na li gëno li mu gënoon a bañ ci jikko bu ñaaw bu nit di jikko mooy wax lu dul dëgg mu ne kenn ci njabootam bu na wax lenn lu safaanoog dëgg mu xam ko nee na dina ko ko mere ay fan ba saa bu ko kooku gisee rek xam ne ki yonente bi alayhi salaam daf ko jàppal mer ndax nu mu xamee woon gravité wu wax lu dul dëgg alimaam ibn al qayim nee na nit ki bu wax lu dul dëgg nekkee ci moom nee na yeneen feebar yi ci des yépp mi ngi ci moom nee na ndax mooy daanaka porte bi nga xam ne mooy tijji ñaawteefu jikko yi moo tax kon wax lu dul dëgg waaye tamit li nga xamante ni mooy jëw al imaam ibnu rajab nee na ak jëw te nekk lu dangereux loo xam ne ci suñu biir suñu diggante waxalante yi nga xam ne dañ koy waxalante ci yi nit ñi di xamalante ci seen biir ci looy xamal sa mbokkub jullit ci lu ñaaw war koo suturaal même boo xamante ni sax li nga xam ci moom dëgg la waaye daanaka léegi dafa dem ba nekk lu normal ci nit ki ci ne daanaka doo xam lu ñaaw ci nit lu dul ne di nga ko ko waxal dina jafe trop nga xam ci nit ki lu ñaaw loo xam ne ayib la te doo fexe ba ut prétexte boo ko waxee loolu fitna ju rëy la jullit dafay sutural mbokk julitam amul kenn ci doomu aadama yi koo xam ne ak mat mi ngi ci yow ku yàlla sutural rek moo fi nekk kon boo xamee say ayi bi mbokk jullit da nga ko ci sutural yonente bi alayhi salatu salaam bi muy bi muy wax ci li nga xam ne mooy jëw daf ne mooy ngay tudd sa mbokk julit ci loo xam ne bëggu ko kenn ne ko waaye bu fekkee li may wax dëgg la te loolu mooy suñu mentalité ci jamono yi ñuy dund mooy jàpp nga ni jàpp nga ni li ngay wax bu amee rek li ngay def du jëw yonentu bi alayhi ne ko bu dee li ngay wax am na loolu mooy jëw loolu nag mooy jëw loolu la leen yàlla tere ba méngale kook tiim sa mbokku jullit bu faatu di ko lekk loolu mooy lu ñaaw la lu salte la lu xeebu la mu ne bu fekkee li ngay wax ci moom amul nag yaa ngi koy sosol te loolu moo gën a téeréyate encore mu bokkaat ci tamit li nga xamante ni bi mooy rambaaj di toxal ay wax ngir yàq wax fii dem wax fële saa bu ko nit kiy def dina utal boppam lu mu dalalee xelam lu mu apaiser conscience am ut ay mubarriraat ay muallilaat yoo xam ne moom lay jéem a dalalee xelam ci ne dafay laaye biir dafay bàyyiloo nit ki xel dafay mettre en garde fekk ne rambaaj dong lay liggéeyee jël ay wax yu ñaaw di tasaare ci diggante ay nit ñoo xam dañoo waroon mbokkoo ci lislaam dañoo waroon a umpalante ay ayib ayib bi nga xam ci ci diw fexel ba mu ump diw ngir seen diggante gën a baax seen diggante gën a rafet dem bañ na la sax bu bu seen diggante di bëgg a yàqu nga dem wax ca wax joo xam ni sax du dëgg waaye defar ak gën a dëgëral diggante ba nga ca jublu yonente bi alayhi salaam nee na kooku kenn du ko jàppee ku wax lu dul dëgg laysa al kadaabu alladi yuslihu bayna an-nas fa yaqulu khayran aw yanmi khayra ndax borom xam-xam dañuy wax ne bu ñu waxee wax lu dul dëgg li tax ñu wane wax lu dul dëgg la mooy résultat bi muy jur yàq gi muy jur waaye bu fekkente ni nit ki ñëw na wax ne mu ne pourtant ku la bëgg la day wax ci yow lu rafet li daf li xew seen diggante gënalu ko saa bu ñu toogee damay gis ne nangam lay wax ci yow nangam lay wax ci yow pour defar seen diggante même bu dee loolu na ko nit ki waxee ameewul noonu waaye defar la ci juddu jublu yonente bi alayhi salaam nee loolu mu wax du wax lu dul dëgg kon nag naka la jullit bi di wëlbatikoo di def safaan bi di jël ay ñaawteef di ko wax ci ay diggantey mbokk yoo xam ni yàlla rek mo wara dox sen digante ak diine di tuxal ay wax yu ñaaw a ñaaw loo xam ci nit ñi ci nit fexe ba wër fu ne nga wax ko fa muy tas di law ci sa mbokk julit lolu ñaaw na lolu rambaaj la baxul julit day suturaal mbokk julitam te da ngay moytandiku sa sa sa mbokk julit yàlla natt ko ci diineem wala ci àddunaam ngay exploiter lolu moytandiku ko dañ dan wax naan la tudhir shamatata li akhika fa llahu wa yabtalika lolu la as salaf daan wax mooy tandikul sa mbokk jullit yàlla natt ko mu mel ne da ciy profito mu mel ne da ngay def ay règlement de compte ëllëg yàlla rocc ko ci problème yooyu jël ko teg ko ci sa kaw ba noppi nag di la xool yow nooy def ndax nit ku nekk ci ñun dafa bëgg nit ñi yërëm ko dafa bëgg nit ñi comprendre ko mais noonu nga bëgg nit ñi jëflante ko ak yow nanga nga ko jëflantee ak nit ñi loolu égoïsme la bëggoo kenn wax ci yow lu ñaaw boo déggee benn kàddu nit ki jëmale ko ci yow ngay bëgg a xar suuf si te fo tollu ya nga jël salam bi diko samp ci nit ñi di ci wax ci di ñu ci ñoom lu ñaaw kon ab julit warna bàyyi xel ci lolu al imam ibn nee neena jikko yoyu ay ay wax ay jëf yoyu ay jëf la yo xamne ci làmmiñ la ko nit ki di fàggoo te lenn lu ci nekk day yàq diine nit ki yonent bi alayhi salam dafa wax ne ab rambaaj du duggu aljanna la doon wax la yadxulul jannata namam du duggu aljanna la wax ndax rek gravité wu jëf ju mel noonu ak yàq yi nga xam dina ko yàq ci biir ay julit kon jikko la boo xam ne jikko bu doy waar la moo tax alimaam ibnu rajab ne daanaka ja ñaawteef yi nit kiy def yépp ci ay bàkkaar ak ay ay ay moy yàlla nee na daanaka du du du ñàkk làmmiñ participer ci nee na li ci ëpp làmmiñ moo cay participer dimbale ci nit ki sax ngir mu def ko moo tax kon mu ne làmmiñe làmmiñ nekk loo xam ne lu garaaw la mbiram ay yàquteem lu doy waar la loolu mi ko ci charxul arbain loolu moo tax kon muccug jullit bi ci diineem mi ngi nekk ci mu sàmm làmmiñam moy moytandiku ba muccu ci loranga yi nga xamne ne mën nako ko jural uqubat ibn amir dafa ñewon ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko lan moy muccu yow yonente yàlla bi man najatu man najatu ben bat la question la bu compliqué bu nakare tontu nit ñëw ne la nan la mëna def ba muccu so fi togon fi ba suba diko limal yim wara def ak yim wara war a moytu soo moytul di nga bàyyi len yonente bi alayhi salatu wasalaam tontu ko ko ci ben kaddu ne ko amsik alayka lisanaka téel sa téyel sa làmmiñ la ko wax lam ca dolli mooy wal yasa baytuk na la sa kër doy na sa kër yaatu ci yow te bañ a xat ci yow foo tollu ngay génn di nekk ci mbedd mi ka taxawaalu del toog sa kër ngir boo bëggee mucc rawatina bu ñu demee ba société bi yàqu toog bokk na ci yi lay soriloo bërëb bi mooy yàlla yi ak bërëb bi bàkkaar yi ba nga mucc ca beneen bi ci des mooy wabki ala xatiatik te nga jooy ci say bàkkaar mooy yittewoo ga nit ki yittewoo mbaaxuk boppam ak di tiit ci boppam ba talu fee nekk di xool diw lu mu def ak lu mu deful mais moom boppam lay tiital bokk na ci tawfiiqu yàlla bu yàlla defal jullit ay ayibam tiital ko ba talta gis ay ayibi jàmbur waaye boo jëlee say bët teg ko ci ayibi nit ñi fàtte sa bopp loolu xamal ni ci yi gën a dangereux yoo xam ne nit ki dina ci nekk loolu bokk na ci loolu alaamatu xirmaan la ku ku yàlla nar a xañ yërmandeem rek mooy faral di am attitude ak comportement bu mel noonu ndax ak naagu lay jur gu waral nit ki ni mu war a góorgóorloo defare ko boppam du ko def ndax saa su nekk mi ngi gis ne moom jàpp na ni defaru na mel na ni mu war a mel diw kay moo am ayib sàngam diw moo mel nangam te léeg-léeg diw mooma ngay wax loolu sax soo comparé woon dëgg-dëgg mbiram ak yow xam ne moo la tane waaye léeg-léeg nit ki du gis moom ay ayibi boppam ayibi ñeneen ñi rek lay gis nasalullah salaamatu al aafiya motax kon yaronte bi alayhi salatu wasallam waxono uquba ne ko amsik alayka lisanaka nga téye sa làmmiñ ci sa bop nga gis timit wax joju mako waxon wax nako ci yenen façon mu nek ben bu ci nek ay règle yo xamni julit bi bëgg sam lamignam warna ci na bàyyi xel ben ci règle yoy mu daan wax ci walu lamign moy ku gëm yàlla gëm bisu pénc na wax lu bax wala mu nopi na jël lolu def ko règle réglam ci dundam wax jo xamni da koy wax xamni li lu bax la mu wax ko bu nekul mbax mu noppi loolu bu ko jullit bi defee règle incha allah dina mucc mu bokkaat ci règle yooyu mu doon wax ne yàlla na yàlla yërëm jaam boo xam ne buy wax day wax lu baax mu jariñ ko wala mu noppi ci loo xam ne lu baaxul la bu ko defee mu mucc loolu tamit beneen règle la bu yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale ci wàllu làmmiñ ak jëflante ak moom mu waxaatoon ba léegi ci hadith ba di hadith abi musa al ashari bi ko abu musa dikkalee ne ko ban lislaam mooy lislaam ji gën ju nit ki di melowoo waxu ko ne ko mooy julli yu bari koor gu bëri saraxe yu bëri daf ne ko man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi subhaanallah nit ki ñëw ne ko ayul islaami afdal jan diine jan lislaam mooy lislaam ja gën fa yàlla lu ñu doon xaar julli ju bëri sujjóot ju bëri jaamu yàlla yu bëri mu ne ko mooy ki jullit ñi mucc ci loxoom ak làmmiñam boobu mooy lislaam bi gën xalaas mu bokkat ci yooyu ba léegi ci règle yooyu nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasallam joxe na ko ci làmmiñ man samata naja ku noppi mucc ñaari kàddu ku noppi mucc man samata naja xalaas man samata naja na ko julit bi jël def ko règle bind ko takk ko ci loosam di ko bàyyi xel saa su nekk mu bokkat ci règle yooyu ba léegi xadisu sahl ibnu saad ne yonentu bi alayhi salatu wasallam dafa wax ne ku ko garantiral ne di nga sàmmonteeg li nekk ci say diggante ñaari lex te mooy sa làmmiñ ak li nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy pëyam mu ne ku ko ko garantiral ne di nga ko sàmm wattu ko nee na dina la garantiral aljanna subhaanallah ku ko garantiral ñaar yooyu mu garantiral la aljanna ndax kooku dina jariñoo diineem kooku mbaax dina nekk ci moom moo tax benn borom xam-xam ci ñu jiitu woon doon wax ne doo du gis nit mukk muy sàmmonteeg làmmiñam di ko bàyyi xel lu dul ne li ci ëpp day gis ne nit kooku ku baax lay doon nit la koo xam ne boo ko seetloo fekk ci moom mbaax koy gis muy bàyyi xel làmmiñam nee na boo ko xoolee di nga fekk ci moom mbaax waaye ne na safaan ba tamit lu mu gis la koo xam ne lu ne lay wax ci làmmiñam bàyyiwul xel lii génn ci làmmiñam nee na boo ko seetloo du gis ci moom mbaax kon loolu moom moo tax kon bàyyi xel làmmiñ ak sàmmonte ak làmmiñ am solo ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ku ko def mu garantir la aljanna ndax xam na ni leneen li ci des dina yomb ci yow waaye bu dee loolu mënuloo ko garanti ba newu fa suñu borom subhanahu wa taala waxoon ñu ne ñu yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal seen borom ci góorgóorlu ci topp ko déggal ko def lim leen sant moytandi ko ay terem jaamu ko te ngeen di wax wax joo xam ni wax ju baax la wax joo xamante ni wax ju yiw la yàlla nee na ngeen koy wax loolu règle générale la yàlla woo ñi gëm yàlla sant leen ragal yàlla teg ca wetu ragal yàlla ga wax wax ju baax wax wax ju yiw nee na bu ngeen ko defee seen borom subhanahu wa taala dina leen yëwanal seeni jëf li muy tekki mooy ne kon nit ki bu wul ak ay waxam ak làmmiñam ay jëfam mi ngi ci en danger mi ngi ci danger bu rëy rëy rëy rëy ci ne du ko moo tax mu ne yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum yàlla jéggal leen seeni bàkkaar loolu julit bu nekk loolu lay wër kon mbiru làmmiñ ma ngi noonu lu bari ci li ñuy nekk di ci kër këri ci ak mbaax ak jaamu yàlla seytaane bu la jéemay fexe wommat jëmale la ca caaxaan yàq bokkaale yàgg bidaa yàgg ya ca ajoog ci waaye ay xuraafaat nga bërek moom foofu daw ba rëcc ko mu bàyyi la ba nga ñëw ci jàkka ji bàyyi la ba nga ñëw ci koor gi ak mbaax geeg topp yoonu alxuraan ak sunna bi mu ñëw fekkaat la fa ubbilaatal la yeneen bunt réer yoo xam ne dala cay réeral ba noppi nga jàpp na yaa ngi ci njub yeneen yi jëf yoo xam ne dala cee yàqal say jëf ba noppi nga yaakaar ne yaa ngi ci mbaax gu rey goo xam ne da ngay dugg rek ñu ne la aljanaa ngi ni dugal mu bokk ci bunt yooyu yi ci gën a danger sab làmmiñ nekk ci mbaax di ci góorgóorlu ba noppi te doo bàyyi doo wattandiku sa làmmiñ mu lay yàqal lu bari ci sa diine te doo ci rendre compte kon benn bunta ngi noonu ci bunt yi nga xam ne seytaane mën nañ cee gàllankoor na ci benn jullit bu nekk bàyyi xel yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala sàmmal ñu suñu diine